liñ ci toftal ci ay wax yu wuute te ñi koy wax yépp bokk benn naan waay nu bëgg cee defug laa biire ndax ñaari xew-xew yu mel ni boo amee li wax njaxas day am day jur pëcc xoo ba kenn ku ne di ëcc jëme ci wet mba mu cay doxe aw aw gisiinam gisin wa su amul yu ko gunge rek mën naa jur yàq gu rëy goo xam ne bu fekkoon ne sax koo ko defar la ci jublu mën naa mujj dig yàq euh, ndax ñaare yu mel nii boo amee bu ci nit ki demewut sago xanaa demee ca ak par wala bakkan dugg ca rek mën na jur lu baree bari te wax ci wax ci mbir war naa mucc ci yooyu sëñ bi doon dawlu naan moytu leen waxe bakkan ku waxe bakkan ñu tontoo la bakkan ngeen feewoo boo seetloo sax daanaka moo jur xew-xew bi ci yaari wàll yi euh, su ko defee nag euh, suñ ca dawee seytaane mi nga xam ne maanaa fu mu toll ma ngay ruuxale daw ca bànneex nga xam ne nit ki mën nay toppi diineem sax bànneex te du ko yëg wala tattabiil hawa fa yudillaka an sabilillah nit nit ki léeg-léeg sax mu toppee euh, diineem bakkanam euh, wattabaa hawaahu fa tardaa euh, ci àdduna it ndax léeg-léeg waay waxe mbaa defe defee noon mbaa lool ko jur kon yooyu yëpp mën naa yàq ay yëf te boo jàngatee xew-xew bi ak yiñ ci toftal ci ginnaaw bi bari na ci wax yu tege ci xam-xam baa mu tege ci xel waaye léeg-léeg nga dégg ci yooyu eh, yooyu da cay feeñaale te comme ginnaaw yooyu day yàq wax di yàq jëf day mat a watandiku la ca toppit mooy lenn ci bokk yi ci àddu it ñor ga ca war ak xàmmee ga ca war day des ba dañuy indi njaxas ba far boole yu bokkut te buñ ko toppee mën naa jur yàq gu rëy goo xam ne euh, ëpp naa def euh, léegi nag euh, mu des rek yu mel nii li koy jur nit ñi ñaare buñ soppee nit lu def baax na buñ bañee nit lu mu def baaxut loolu nag lu ci ne ak ëppal a ngi ci sëriñ bi dañoo tere woon dañoo tere woon ifraat ak tafrit wala takum mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita waaw ah, mooy digg doomu dafa am solo sëriñ bay jaxate ne ndaxam mépp mbis ndaxam mépp mbir digg doomoo ci gën ndaxam mépp mbir digg doomoo ci gën ka yeesëg ka ëppal ku nekkug mooyam kon di moytoo ëppal ci mbir yi ak di ci yéesal eh, mere nit ki eh, tax nga eh, yeesal ca mbaa sopp nit ki tax nga ëppal ca lu ci ne day mata wattandiku te yooyu yëpp dañ ko seetlu ci xew-xew bi léegi nag mu nu war a dellu kon ci luñ ci luñ ciy jànge su boobaa nag dañuy fexe rek ba am autocritique nit dafa war di Euh, euh, régler boppam ci anam yu bari su juumee mu nangu ne juum na moom ci boppam bañ a amug rëy bañ a amug diis bañ a amug bew bañ a toppit meram di moyti di wax te booy wax nga waxee ci mer yooyu nag ci ca nit ki jaaree dana ko dimbale bu ko amutit nag te am ab soppe mbaa xarit mbaa kilifa bo mu wax ko it dana ci am solo ndax nit loo ko sop sopp rek deel nangu bu juumee nga ne daa juum bu kee itam nga jaajëfal ko ta kii ko danay dal ñu bari ci politique bi di leen dal ci seen tànninu àdduna di leen dal ci wàllu diine ji ah, salaahu salaama nag daf na waxoon ne unzur axaaka zaliman aw masluma waxin woowu sax arab yi miinuñ woon waxin woowu moo waraloon sax ñu ne ko waaw ah nun de xam nañ dimbale sa mbokk ci kaw buñ ko tooñee waaye bu tooñee nag moom moo nu jaaxal moom waxin woowu noonu ngi koy soog a dégg dimbaleel sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee ah ko tooñee rek xam nañu ko kuñ ko ku ñu tooñ muy sa mbokk nga dimbale ko xam nañu ko waaye nag mu tooñ nga di ko dimbale daal lañ xam nan nga koy dimbalee ci bu tooñee ca la leen waxoon ne nag su fekkee ne dafa tooñ nga xamal ko dëgg xamal ko ne ko yaa tooñ jéggulul mbaa baalul mbaa dellul ginnaaw mbaa bu ko defati. yooyu yëpp yu am solo la kon loolu jàpp naa ne euh, faw nu tàmbalee foofu su ko defee nag euh, nit ku nekk ca la ngay yëngu ngay juume kay dawal oto ca lay defee accident maçon bay tabax ca lay toje ab birig mu ëpp mbaa tabax ba dënk mba mu defee ca muy Euh, euh, ya aju ca loola rek mu kii ca moo xam mani seba la muy dagg bant mbaa nangam ni ki noonu it lay dale kii wax su boobaa nag euh, njuumte moom faw des koy jéggal nit du caage ne nit ki day juum rek so songeef ko su fekkee ne dafa juum jéggalees ko mu juumati jéggalees ko mu juumati nag du ñàkk waxeet faw waxees ak moom ndax mag ñi dañ wax ne jéggale mi ngi yem ci yat boo bu tooñee nga jégal ko mu tooñaat nga jégal ko wow ñetteel wa nag waaw boo xoolee eh, xadr ak Moussa sax ca keem ñetteel ba lañ taxawe ak yeneen man ma des na ci joxe yeneen misaal waaye li ma jubloo wax rek mooy nit du juum benn yoon rek songeef ko waaye nag day mel ni lii ay njuumte da ko jiitu. mu des nag ndax fiñ ko àggale àgg na fa wala niñ ko defe lañ ko war a defe yooyu moom mënees na ci ay xalaat dana ci ñëw jamono yi nga xamee ne xisab nag wi génn na euh, waxoon naa ne foofu euh, warees na cee gaaw wax euh, ba yu mel ni bañatee am ndax la muy jur booba lii laa séntu woon wax naa ko sax bokk ko ak kilifa ngir xam ragaloon rek mu tàbbi loxo yi ñu ñorut mba ñu xàmmeewut te mooy li moo moo dem ba agsi euh, ndax boobu bu fekkoon ne waxees na ca ndax sax fii mu ne nii rek am na ñu andiwaat loola wane ne loola dafa am ñu ko joxoon waa ji ngir mu wax ko ngir woyofal ak ceex mooy lan wala seex si wala yu mel noonu loolu lépp day wane ne rek la ma coon ma ca doon ragal moom amoon am na kon ndax euh, bu fekkee ne. da wax lu mel noonu te la ko jiitu nga waxoon lu ko niru ca euh, ay yëf am ñoo ci loon soo waxee loolu yàggut nga dellusiwaat dolli ca lii nag day mel ni la ca nit ña doon jort wala yu mel noonu mën na koo niru ku mel ni man nag moom dara da ko yëngalut ci yooyu ndax man yàlla dama dimbale ni ma Sëñ Tuubaa xamale boppam yi may déranger bariwut bi ci desit mooy ñim ma booleel ma jaar ci sëriñ bi ci wetuk ndey ak wetuk bàyyi yaari wàll yooyu yëpp alhamdulilah ci seen digg ak sëriñ bi ak fañ jaar ak moom alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilahi alhamdulilah jërëjëf sëriñ Tuubaa ci anam googu kon yooyu moom bu fekkoon ne am na yu gën a rëy yooyu buñ ko waxee sama wetuk bopp du ma yëngal ndax xam naa ki ma doon ci yàlla yaari wàll yooyu li may tiit kay mooy nan laay war a góorgóorloo ba jiima xam naa sax duma leen mën a dab waaye ma jéem leen ne dan rek xëy na ak barkeelu ci ñoom ak ak taasu ci seen barkeek feeñal leen a jéem leen a roy su boobaa ndax yàlla alxaq naa bihim zurriyatihim jooj ñi su alxuraan di wax ah, te kilifa gu baax alaaj abdu daan ko firee bu ñëwee alladina ah, amanu walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin moom daan wax ne alladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imaanin kaamil alxaqna bihim zurriyatihim walaw bi imaanin naaqis waaye nit faaw mu lu ba bu mag ña soo gis ko it loolu lu ci am solo la bañ doy doyloo rek fii laa bokk ak kii mooy sama maam ak loolu dafa woyof te gone lool nag dëgg-dëgg su ko defee jiim leen a roy ak xencu seen i jéego itam xam seenu bëgg di ca doxit loolu lu munta ñàkk la lu am am solo la kon la jiitu mooy loolu léegi nag euh, fexe ba xam fa nga bokk te toppatoo ko loolu moom dafa war ku ne ba bu ëllëgee xëy na yi fi muy àgg ñenn ñi yow mën na la mën na la faa donte sax yow mën naa am bu fekkee ne wax ja fee la jëm bañ dëppoo ci ne fee la jëm it taxoo muy wax it waaye nag loolu du tax nga toog ne waxuñ ma rek dafa am loo bokk ak say bokk am kuréel goo bokk ak ay nit ci wet googu. am itam bu lépp jàllee sëñ tubaa ji sëñ tubaa ji nga xam ne mooy ndeyi mbili gi moo jiitu moo njëkk mooy mujj kooku moom maanaam lépp lu ko laal kenn ku ne da ko koo war a naqarlu da nga caa war a taxaw ndax e, bu fekkee ne ci ñooñu la jëm ñooñu defarub sëriñ bi lañ te boo salfaañee maanaam melow sëñ bi akub dayoom ki xamutoon ci moom dara bu ñëwee xool lu sëñ bi defar da cay xame matuk sëriñ bi moo tax am na nooy waxit nooy sabootee defaru sëriñ bi day mel ni ci sëñ ba lay jëm loolu lu mat a bàyyi xel la kon waggar ñooñu ak jox leenub cër moom day lu war mburit yëpp waxuma ku bokk ku bootu ca ñooma ku ca bootu wut loolu bu loolu mooy li li li li li li nga xam ne ku ne war naa xool jëme ci wet googu bañ koo xoole kër danaa del si ci mbokk mi nga xam ne moom da ko dafa yokk ci xar mi kawar fara da ko def yaari kuréel ah njuumte lu doy waar la moom da ko def yaari kuréel tudd seex si tudd mbaki mbakki yi loolu lu garaaw la fi ne ah te loolu waxin wa moo jur loolu waxin woowee moo jur lii lépp ndax su fekkee ne danga waxe noonu waxe ne képp ku nanguwut ne sëñ Tuubaa nangam loolu moom amut ku koy bañ moom kooku moom ku ko bañ bokkoo ci yoon moom loolu kenn kenn bañu ko sax maanaam dugal ci xel yi loolu rek dafa doy waar li tax wax garaaw mooy loolu loolu mu ilxaa ba mel ni daa am ñu bañ li leen sëñ bi defal loolu loolu loolu fooy taxaw ku ku ku bañ loolu ana foo ana looy nangu maanaam fooy taxaw ëkk fàtte la foliku de loolu maanaam loolu xel da cee jëmut musunu amut benn seex bu ñemee taxaw di wax loolu te kenn musu koo defit nag dëgg-dëgg moo tax wax ji wax gi jëmee foofu rek ak ak ak tooñ la ak njaxas la daal Ah, ba waral waa ji ak ñu ni naan waaw wax na dëgg ku ne Sëñ Tuubaa déet loolu kenn loolu muttafaqun alayhi la <laughs> loolu moom kenn werante boo gisee kenn ku ne la muy ndamoom mooy la lu maamam liggéeyal sëriñ bi coono ba mu ca dajak loolu lépp fi ne da koy da koy wane nangu gaat roxloog tëdd ci suufeek jël sëñ bi teg ci kaw loolu mooy loolu mooy yëfi di loolu moom rogal naa ne sax di ko tudd tudd tudd googu loolo rek bokk na ci li li eh, tax wax ñu koy wata ñi koy war a mm, bàyyi xel <clears throat> yu mel noonu yi moo ko waral xam nga sëñ Modou Fadiama bi muy ñëw ci sëñ bi euh, ñenn ñi dañoo wax ne comme mbokkam la mi ngi bokk ci seer soxna Bousso diggante doomi nijaay ak doomi bàjjan euh, mbokk googu la doon xeeñtu ba am na ñu ne sax li ñuy wax ay sagari njaam xeet yu mel noonu waaye bi mu seet see sëñ bi daal. ba bi mu ñëwee dafa gis lum xemmeem ci mbirum yàlla ndax ñi sëñ bi yar ni leen defareek yooyu te comme ñoom dañuy gis euh, euh, nit yàlla yi dañuy dañuy xam mbirum biir cala la ñëwee nag ci sëñ bi euh, ne ko li nga defal sa gaa yi daal laa bëgg nga defal ma ko ah ba gudd la waaye ci tënk rek mel ni sëñ bi da ko ne ah loolu nag day jaay mayewut foofu rek mën nga fay jàng ne sëñ bi lim yor day jaay kon ki bëgg a wax ne eh, ku fi bàyyi li la sëñ bi defoon it bëgg koo fal moom it na sóoraale ne luñ doon jaay la luñ jënd sëñ bi day jaay sëñ Fallou wax na ko ne sëñ bi waxoon na leen li fi ne day jaay duma ma doomi kenn du ma bàyyi kenn du ma nijaayi kenn mooy ca seen jataay bi ak suñ ma roqi bu soog suñ ma soit seen jataay boobee mu leen doon jàngal ak taalube jàpp naa ne kuy wax it war ngaa sóoraale ne taalube gi moom amul ku sant Mbàkke ku sant bu soog ku sant neneen loolu it mën na ci boole bañ bañ bañ bañ ñu ngi bañ a jàpp rek ne seex si wala taalibe yi rek ñoo war a tërbiya wu ñoo war a wut ci sëñ bi nangam sëñ bi dafa am lu mu yor loo xam ne euh, lu ñuy jaay la ñu war koo jënd dañ koy wut joxe sa bopp te liggéeyal ko aju ci moom bëgg ko sopp ko wéy ci ndigalam bay ay tereem bu fekkee ne nag waa ji dafa bëgg a doyloo sant bi bàyyi loolu it su boobaa moom itam ni ñuy waxee ñeel la ñuy war a moom moo tax loolu amut ko ci mucc waaw moo tax sëñ Fallou jaay njureel gi jëndee ko ak taalibe wax naa ca fan yee ci mbokk bi doon lëndëmal xilaafa bi ma koy tontu wax naa ca lu mel noonu daal ni sëñ Fallou ñoom ak sëñ Mat Mustafa doomi sëñ Tuubaa waay dañoo def ni murid yi njëkk ya daan def sëñ bi daleen leen tarbiya tarxiya la yan du caage ne dañuy doomi borom Tuubaa rek noonu donte la doomi borom Tuubaa doon sëkk ab cër loolu meneen mbir la moo xam ne moom mbirum biir la waaye dañoo tarbiya wu bi sëñ Moussa di Martial sëñ sëñ Mat Mustafa wax na ca lu mel noonu daan ne bàmbaa nga leen tërbiya fi sarsaara ak i jaraariya ni wa lan saara bàmbaa nga leen tërxiya fii jolof njaay fa daaru rahmaanin ñi lee tonom njaay bindeg liggéey ak jàng lañ daa boole jal sëriñ Faadilu mii di xoole li may wax ko weddi demal nga laaj ko mi ngi nii di dund di la demal nga laaj ko ah, kon ñoom it dañoo def noonu kon sëñ bi li yor lu ñuy lu ñuy sàkku lu ñuy wut la ah léegi nag euh, wut googee na Euh, ëpp naa woyofal ndax kum fekkoon nga daan ne ci lislaam ndax li ëpp ci seex si maam yu baree bari ay jàng la yoroon daan dund lislaam di dund diine ñi ngi woon ci mbaax nekk ci lu baax Sëñ waa dafa indi lu gën baax a gën nag du benn lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yor ci xotti baax baaxaale gaa yi xarnu bi kenn du Sëñ Tuubaa euh, moo tax euh, njaxas mi ñu bëgg dugal foofu laa bëgg moom nañ ko génnee gaaw nañ ko génne kenn taxawut di di di di loolu moom loolu ak ceytaane daa dugg ci biir yëf yi moom moo tax loolu ëpp naa kii nañ ko yemal rek fam yem <clears throat> nga léegi nag sëñ Modou Faa Jama bi mu gisee lum xemmem foofu euh, ba ba ba laaj ko sëñ bi la ko loolu moom mm, da ngay joxe sa bopp moom nday jaay mu ne ko ah, joxe sa bopp mooy lan mu ne ko mooy ñëw fii rek jëb jébbal sa bopp ni ni ñuy ni ñuy def di déglu wéy ci samay ndigal ak samay rek noonu ñu xamee jéblu mu daan ne ko ah, waw mu de booba kilifa la waaw ah, booba àgg na foo xam ne te la waaw ah, te loolu mag ñu bari àgg euh, àggoon nañ foofu waaye bi ñëwee ci sëñ bi gisoo Seex Ibra kër mutu fa mbamba googu daana wax nañ sax foofu daana daana àgg ci julli foo xam ne dañ ko daan tegal cëri góor yàlla yëpp waaw ndax boo xoolee rek ni sëñ Moussa définir ni mu wanee Cheikh Ibra da nga yëg ne euh, am na fu mu àggoon ndax euh, mas nay xibaar ak jébbuloom ba wax ne yàlla mi ko moom moo ne Bamba moo moom raasi jox ko say pexe maanaa suñ boroom sëñ Tuubaa day baabullaahi ci kaw suuf ñu góorgóorlu woon doon ay jàmbaar bañ demee ba àgg fañ àgg sëñ bi da suñ borom da leen a joxoñ da leen bi ci sëriñ bi la ñuy jaare jàll ci yàlla li nga xam ne góor yàlla yi doon wut yonent bi it moo xam ci tariixa la wala ci budul tariixa suñ borom salaahu salaam la leen joxoñ fi ne mas xibaar ak jébbalum boo ne yàlla mi ko moom jooji joxoñ boobu dafa niiroog joxoñ bi sëriñ bi bi ko yàlla joxonoon joxoñooñ yonent bi dallani yàllaahu ala muhammadin wa qaadani muhammadun lis samadi xam nga sëriñ bi dafa jofe jóg rek wuti boroom ndem yàlla moo sàkk ci kaw suuf ne fii lañ may jaare wut euh, jël yonent bi muy muy muy muy jaar waayam moo tax mu jaarloo ko foofu waaw waaye xaw tuut rek bu dul woon loolu waaw léegi nag Cheikh Ibrahima it noonu la noonu la ko sun borom xamale loolu kon ka àgg foofu ba sun borom bi la xamal loolu nag loolu euh, mat nay gendiku sëñ moo Modou Fadiama mii bi ko sëñ bi waxee loolu da ko ne ah man de kaang laa fóore laa te damay dégg ndéey maanaam xadara ba lañ fay wax sëñ bi ne ko waaw loolu baax na dégg dégg ndéey nag ñu boole la ci moo ko gën. gis nga sëñ bi fi mu toll waaw ca la nag jaayanteeg moom xisa bu gudd la mos naa ko fee nat li ma tax du jar ma ciy jaarat mooy ca dangaa bëgg ko la cuut ak ku la tas takkaat ak lam mokkaloon bu njëkk nam demee woon ba bi muy dikkaat ci moom bi ko yëf yi dikkalaatee nam ko gënaate nam ko gën a déggaate lu mokkaloon gën ko mokkal lu mu déggoon gën ko dégg yaakaar naa mos naa ko fee nett la ko euh, loolu li ma ci soxla rek mooy tolluwaay boobu ndax sëñ Modou Fadiama moom sëñ nekk na fa Gabon di fa fa wiir wiir mook sàmbalaw bi sëñ bi mel ni daa am ko muy waxal sàmbalaw bi nag loolu da cee jaaxle ba bi sëñ bi noppee ba dee bi mu dee ba noppi da ko ne waaw yow fii nga nekk yow dong koo doon waxal mu ne ko ku ñuy wax Modou Faa Jamañang moo doon jéem a wax ak noonu doon ko tontu xoolal loolu sëñ bi sëñ bi nekk ci Gabon moom mu nekk fii fii eh, Saloum fii fii senegal eh, nga xam ne kon lu salaahu salaam defaloon saxaabaam yi sëriñ bi defal na ko ñim àndaloon loolu mën naa ci joxe misaal yu bari ndax yaa saariyata al jabal ca Omar bi ko Omar di wax te fekk wax na ko ci kaw te seetluwu ko saxaaba bañ doon tëru ngir war koo agressé war a nangu njëgg mam yoroon te Omar naan ko euh, jëmal ci wetu xeer wi làqulu jëmal wet googu te fekk mi ngi xutba ci biir jàkk ji. ndax loolu mu jot sànni rek am nañu ci ngooy ba bi ñuy tontu ñoom seetluwuñ loolu sax ba far jël débat bi yóbbu ko foofu mel ni kon daa am ñu nanguwut ni sëriñ bi moo leen defal wala moo leen jox loolu dafa garaaw sax loolu wax ko rek ndax kenn mësu koo wax kon ba tey ci biir wax ji wet googu mu souligné rek mel ni nangam rek loolu njuumte la euh, su fekkee ne dafa am ku mu joteel. jàpp naa ne euh, yem ca ko waxak ak kooka ca lañ jote ak yem ci moom jàpp naa ne mooy li te euh, jégalu gu njëkk gi donte la jégalu gi am na njumte sax waaye euh, loolu mu ne lam waxoon bu ko waxaatee nangam kam joteel loola moom day daal di yell ci mu leer la kooka wax ndax bu fekkee ne moom moom la ñoom ñaar la bu fekkee nag dafa laal yoon wi moom loolu moom seex seek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 Senghor Tawfekh multimédia est là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 production le leader dans son domaine. Ah, am lépp tawfeex sëriñ bi mën a bi.